waaw Ndiaye dama bëgg a wax ne. problème mu Karim dafa war a inscrire ak ñàkk bañ a inscrire jógewul ci justice bi si ñaar lu jóge mooy daaf bi. d'accord mooy ki nga xamante ne mooy directeur des élections ñoom ñoo wax ne Karim du inscrire. kon c'est un complot politique. donc est-ce que xam nga li ma la wax moo tax ma ne la Karim pour mu inscrire war na ko mën a def. très bien mais donc ma ci mhm. mu xool humainement Ablaye Wade xam li ñu séq xam fi ñu jaar ak fi mu toll mu am loo xamante ne. politique. wala yokk à la thèse du c'est-à-dire non c'est-à-dire euh, complot amul. c'est-à-dire complot amul xam nga lan moo am euh, xam nga moo am professeur. Hmm. c'est-à-dire il faut danga am lu ñuy am loo wax. c'est-à-dire que kilifa diine yi mënul leen jëlee ci réew mi dafa am lu xamante ni dañ koy jouer te yooyu du lu ñuy wax. te état boo ko ci interpellé du wax dafa am lu bëri loo xamante ni kilifa diine yi jëlee nañ ko ci diggante bi ba mu toll fii d'accord waaw ah. mais li ma bëgg a li ma bëgg a wax mooy euh, maître Souleymane euh, lu am solo dafa ne ñun su fekkoon ne ñoo gënoon a yées ci ñi àndoon ak Ablaye Wade kenn duñ jox benn responsabilité donc les responsables que nous avons avant l'alternance on l'a mérité parce qu'on était ay centaines de personnes ou des milliers de personnes ou un million de personnes dans le PDS ñun suñu joxee cër rek dañ ko mérité. mais nag par ba PDS Ablaye Wade ñëpp xam nañ ne du ay compétence la doon récompensé de Ablaye Wade gouvernement yaa ma non non non non non attends attends yow ma professeur déglu woo ma de. Ah, ne jusqu'à l'alternance ba bi ñuy jam ci ba bi ñuy gañee alternance bi. waaw responsabilité bu fa waaye am ñi àndoon ak moom ses compagnons dañu ko mérité. après nag il a pris des gens yoo xam ne dañ leen doon jël fu nekk yooyu loolu on le comprend. Eh. mais ñun ñi àndoon moom ñi ngi ki choisir ñu am responsable dañ ko mérité. loolu moom dama bëgg loolu mooy muy loo xam ne. muy loo xam ne loolu euh, euh, lu leer la. d'accord euh, cher Omar en une minute très rapidement nga évacuer li nga bëggoon wax. ma li ma bëggoon wax. ci madame ci Ndeye Dime après Pape Makhtar ndax complot politique. complot politique weesuwul lim naa ko sànq ci njëlbeen. c'est-à-dire ku am ambition politique. warul bokk sama schéma politique pour fal lépp lu ma nar a indil gàllankoor dinaa ko dindi c'est ce que Macky Sall a fait en fait moi je quand on a pris Khalifa Sall pour des histoires de caisse d'avance alors que mairie Dakar ca Papa Diop ca Mamadou Diop parce que bëgg nañ dëgg sarax pour xañ ko ko quand on a pour enlever certaines personnes ça c'était un plan politique leneen li may wax. mais Khalifa la loi existait. Farba may ma rek Khalifa loi baa ngi foofu. may ma may ma. sa def na nangam kenn jàpp ko. man def naa ko ñu jàpp ma waruñu ma jàpp loolu. loolu am ci dama laa déglu dama bëgg sa waxu démb. ak tey mu ànd. amul différence toog da toog Sénégal ñëpp dégg la. nga ne duma ma dem wuyu waa CREI parce que jàpp naa ni CREI yi du yoon. CREI duñ ma dégg damaa dem ba yegg ma ne duma leen tontu. mais dem naa de. je suis le seul. kooku histoire na ko retenir. ah <laughs> non il faut pas que les gens nag ah, ah. le seul ma ñëw taxaw devant le colonel de gendarmerie ak toute l' équipe ak les structures du procureur ma ne je ne pas parce que waru leen maa euh, tontu ndax l' article 111 de la constitution ne vous permet pas de m'entendre man juridiction de droit commun moom mooy entendre gars yi ba sonn ma bañ. je suis le mais Karim dafa ñëw sëgg. est que tu Karim daa ñëw sëgg daal di ne. avec tout le respect que je vous moom la wax. waa gi ne ah kon nooy neex la ñu dóor ci. alors Ndeye Dime très rapidement. waaw xëy na rek yokk ci ak mhm. euh, li fi jot génn ci ay analyse en tout cas Masalikul naan euh, gisoon nañu président Macky Sall euh, mook Abdoulaye Wade ils se sont retrouvés ñu dem palais mu recevoir ko mais fan yële passé dégg nañu Doudou Wade di wax ni président Macky président Wade ñëw na ko seetsi ko ñun aussi dañuy xaar li mu waxoon na ñun na ko def te jàpp naa ne xëy na bis bu rencontre boobu jotee man gëm naa ni fa la ñuy jaaree lijjanti mbiru Karim Euh, waaw euh, man de lu ma ciy wax mooy euh, xam nga amnistie bi ñuy wax yaakaar naan président Macky Sall yabul Sénégalais sax parce que 138 milliards moom ku ko yoreel nit yoreel ko réew nga naan da ngay xëy si amnistier ko 138 milliards yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw tuumaal ko ko tiiñal ko ko condamné ko kon dina ko génn fay ko donc je crois que li nga xamante ne dañ koy wax ci Karim il faut que Macky Sall assumer bu nekkee erreur la woon ci départ man ma jàpp ni erreur la woon mu assumer ko toog di naan day amnistie koo xamante ne Sénégal la yor parce que gis nga bu ñuy dóor ci justice dañuy naan au du peuple sénégalais. Mhm. la justice est rendue au nom du peuple sénégalais du au nom de Karim du au nom de Moustapha du keneen nangu nañu def nañu le choix génn Karim bàyyi fi suñuy xaalis te xaalis boobu yaakaar naan mënoon a tax ay hôpital ay kër ak yeneen ak yeneen ñu jël choix wu déplacer ki nga xamante moo leen doon déranger muy Karim Wade xaalis fexe ba régler problème sénégalais yi lijjantiwuñu ko tant que ñëwul Sénégal duñu wax waxu contrainte par ko xamul kenn xamul donc il faut que ñu xam ni que lii mooy li ma waxoon sànq nekkul un débat juridique avocat bu ñu demee bay def communiqué sax dañoo juum parce que fu ñu juumee mooy mënoo weddi ni lii baaxul xëyaat suba dinaan lii baax na ba jeex na uh-huh. mënoo ni tey jii nen ne uh-huh. mënoo ma ni yow document bii nga yor baaxul uh-huh. c'est illégal c'est illégitime document bi date de validité bi nekk suba wala ginnaaw suba ginnaaw suba nga ñëw di naan document bi jeex na. tu as raison ana li nga waxoon. donc loolu yëpp bu ñu dugg ci débat yooyu nañu fexe ba dugg ci débat bi nga xam ne débat politique la te politique politique koy. Ah, jeexal professeur pour. waaw bon affaire Karim Wade daal man li ma ciy wax mooy li ci ñëpp wax rek sànq damaa dégg ñu interroger Pa Assane mu ne man benn moo laay wax rek sécurité mais man benn moo wax rek que justice soit faite. que justice rek. justice soit faite xam naa noonu la ñuy delluwee euh, ci Pape Massata Diack qu'est-ce que vous a, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui euh, par rapport toujours ak procès bi quelle est l'étape suivante ak euh, qu'est-ce que vous attendez de l'état du Sénégal waaw li may njëkk def ba ñu génnee les libérés bi le 16 septembre dès le 18 septembre dama interjeté appel donc li may ñaan fu mu toll nii ak li may organisé wu mooy fexe ba bii yoon avocat yi yëpp dem Euh, ba pièces yi ma yore yëpp ak li ma mën a génne comme preuve yëpp ma mën ko génnee ci cour d'appel parce que cour d'appel traditionnellement ay magistrats yu chevronnés ñoo fay nekk yu xarañ yu am expérience te tamit yu impartiaux parce que xam nga première instance moom souvent de difficile surtout affaire yu euh, cas yu mel ni ay scandale financier rarement nga ko gagné première instance parce que nit ki mënu laa yekk lu nekk yow suba teel euh, jour procès mu jox la dëgg donc bu ñu naïf léegi nag li ñuy xaar ci état Sénégal di ko xaar ci kilifa diine yi di ko xaar ni ko Umar fay waxee ni ko Farba waxee ni ko Pape Mokhtar ñëpp waxee mooy ñu soutenir ñu jàppale ñu ndax euh, soutenir. Euh, am na ñuy naan Sénégal doo français. nga baal man benn passeport la am. amoo passeport France. amoo beneen passeport beneen dëkk. doomu réew mi ah daal dañuy naan comme. Euh, euh, Pape Mokhtar xam na laa déggul biir na wasin na. kon kon bu rëy bëgg cere. di dégg naa nekk dégg naa lu nekk ci juróomi at yi. jàll na euh, xam nga àdduna moom. da nangu léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqadi. Fatba mii xam na ma màggee zone B. ñun booy zone B du ñu xam <laughs> xamee ñu xaw a dëgër nekk ay boy town ni ñu koy waxee. donc dégg naa lu nekk waaye loolu yëpp jéggal naa leen fu mu toll nii mag bii nga xam ne am na 87 ans fexe bu mu jëlee man maa ngi fii Sénégal maa ngi gis sama njaboot maa ngi dem ak a ñëw maa ko tane tamit mën na am tukkeetuma comme euh, comme yeeg business bi ma doon def defatuma ko d'accord waaye maa gën te tane nañ fexe ba jëli ko parce que lii mu nekkee loolu acharnement euh, persécution la wala inquisition Euh, actuellement euh, très inquiétant maître Bourdon wax na ko man aw ma contacté moom direct mais maître Bourdon dégg naa ko mu wax ci procès bi ne kii soo leen ko condamné fekk da bëgg a rey. parce que ah, aw ma droit am contacté moom depuis cinq ans. Ah. Euh, maa ngi ko gëj dégg le premier novembre deux mille quinze laa ko dégg donc contrôle judiciaire bi la. Ah. collaborateur yi mu nekk yëpp. amuñu droit am contact ak moom. kon góor gi nu mu mën défendre boppam. yorul kay yenn kayit. yoratul ay dossier am directeur de cabinet mënu ko contacter avocat ñu ngi ko téye Habib Cissé amatul benn contact ñu ne doomam waroo wax ak moom. donc lii France di def nii mais lu ñaaw la kenn xamul lu mu tudd su koo xam ne nekk na 27 ans français Lamine Diack 1933 ba 1969. ba muy jógee jàng ñibbi si 59 di nekk euh, fonctionnaire sénégalais tubaab la. CONFEJES bi ngay dég conférence des ministres de la jeunesse et des sports francophones moo ko créé la déclaration de l'UNESCO sur le dopage moo ko créé ak professeur René Maha ki jiitu woon Amadou Mahtar Mbow mais li ñu ko dal nii mooy li dal Amadou Mahtar Mbow ba mu nekkee UNESCO ba ñu demee bu ñu waaj a génn ñu naan communiste laak euh, doom ji da daf ñu gis mu dawal benn rôle solo fi anan daf nañ ko ko. am na benn affaire pétrole contre euh, société doomam bu tudd Cotecna gagné marché ñu ne su fi anan day day luubal. Ah. Euh, euh, Iran ne ba ba muy génn fàkke boobu liñ ko mere woon rek mooy li mu nekk prix Nobel de la paix. bi ci mujj ne Tidiane Thiam franco ivoirien. Suisse yi jox ko benn banque suisse boo xam ne presque mu ngi fayit mu redressé ko ba am bénéfice su 3 milliards 900 millions de francs suisse ñu ne ko da nga doon topp lu benn cadre cadre crédit suisse na nga war démissionné toroxol ko donc loolu euh, lu ne guleet la mais lii nag damay woo combat bi pour africain yëpp la suñ ko xeexul tey africain bu yoreti bu tànk ci mhm. kuréel boo mënti doon danañ fexe ba toroxal la c'est sûr loolu comprendre de principe la mhm. man ma ko pour man nee na la man euh, jaay fu ma dugg ci monde bi jaay contrat ndax loolu sama métier xëccoo ma place ak kenn amul dévolution monarchique IAAF wutuma moon place góor gi wutuma place vice président wutuma place membre du conseil waaye nag nit ki liggéey 39 ans ci benn kuréel consacré addunaam yëpp passion am yëpp ba mu waree retraite ba léegi mu nekk ci di xariñ ba dëgër ba muy dem foofu ma ngi fa bàyyi 41 milliards tey fédération bi am na problème ñeenti sponsor lañ am euh, ñu ngi tollu ci 31 milliards donc nag euh, nee na li ñuy ñaan mooy justice am waaye justice moom ni ko far boo xëy le conseil est bien noté naa ko wax suñu renforcer suñu équipe juridique danañ ko renforcer kon nag ñu ngi màjjal ku ñu ci mën jàppale état bi euh, maa ngi ñaan ci au nom de la famille de Lamine Diack noonu ñu mën a taxawoo ba ñu gagné au à la cour d' appel na ñu taxawoo maa ngi ñaan ci kilifa diine yi loolu mën ci kurus loolu mën ci tur yàlla na nga ñu ñaan ci weeru safar gi ñu nekk ni ba pare nag population bi jàppale ñu xam ne tooñ nañu doomu Sénégal ba pare nag ñu xeexal ko sa papa mën nañu wax Sénégal yow loolu loo liggéeyal Sénégal. Euh, def na fa ay euh, diggante ba mille ba 2000. athlétisme africain yi meeting yi nga gis yëpp am Afrique Cape Town Durban Nairobi Abidjan Rabat Dakar meeting de l'unité africaine yooyu yëpp maa ko sponsorisé 16 millions 500 mille dollars. football Sénégal 2001 ba 2006. dugal naa fa 7 milliards 300. IEF boobu. ba 2015 dugal naa fa 120 milliards nga loo liggéey liggéey na. alors euh, da ma ko ñaan donc mënu ma la ko bañal en secondes. a wax le khalife général des Tidiane jóge na fi dem ba France ba mu demee France seeti na Lamine Diack ba mu bokk la mu fa def xam na ko bu fi jógee ba dem ba seeti ko am na wax te am na lu ñu waxtaane donc sànq ba li nga wax d'accord naa si Touba ak Tiwaawan réew mi kenn mënu ko tabax te doo wax ak ñoom waaye ñooñu ko tudd nag kenn ki seeti na di ki Lamine Diack keneen ki mu yor mu sëñ Cheikh Khady mu daaru mussi moo ma dee kii toog jëmm ji toog la ma ko defal si daaru musi ak Touba la ma fa def ndax murit laa te xam naa loolu nag bu ko boolee def jonction ak kilifa diine ak ñun li ñu wax ñëpp kii kenn du ko jugé te dinañ ko bàyyi si jàmm bàyyi waajuram mu ñibbisi loolu mooy suñu xeex man xooluma avocat damaa damaa juridigul France nañu xam ne ñii ay c'est des dignes fils de ce pays et nous allons nous battre je vous remercie nag nen parce que man li ngay wut da ngeen def nii dama invitation bi ngeen invité ñu toog masata toog dafa dafa yéex sax pour man parce que réew mi mooy réew mu xamante mooy ak adduna mooy mooy foo xamante ni ne il faut nga anticiper sur ta communication doo xaar parce que buñ la fexelee rek bu ñu la bëggee fexee lu nekk lañ def waaye nañu xam ne li ngeen def rafet na te il faut ñu oote benn émission spéciale wax ci li nga xamante ni ne mooy li ñu defal ñu defal nii la masata na ngeen toog bul bouger paa bi na toog dinañ ko jixaat parce que du ñu nangu un sénégalais wala un africain ñu di la fragiliser ci lu xamante ni du yoon loolu loolu dinañ ko xeex te génération boobu génération bi du génération boobu du génération boo xamante ni ne dañ leen di dañ leen di dañ leen di noot esclavagisme boobu ça ça n'existe pas avec cette génération là c'est fini alors dama ne man dama ciy tiire enseignement gis nga ñun ñëpp quel que soit bord bi ñu bokk il nous appartient de construire le Sénégal de demain bi ñuy ñëw fii bi ñuy commencé ñun ñëpp xaj na suñu position yi ànduloon man j'étais dit gis naa wax naa franchement masata man li ma naqare woon ci affaire procès bi mais bu ñu demee ba affaire bi yegg gis nañu ne yéen ñëpp da ngeen am convergence su nañ ko soutenir d'une manière patriotique di régler problème yi d'une manière patriotique loolu la ñu def nag sur les problèmes du Sénégal mu bañ a am ñoo xam ne dañuy taxaw rek ne dañuy ŋàññi man day wax toujours ne ñaañ ŋàññ c'est l'arme des faibles ñëpp a mën a ŋàññ mais pour construire notre nation pour demain pour construire l'Afrique ak le grand retard que nous avons dans tous les domaines il faut que ñuy def ay propositions di synthétiser propositions yi di ko mettre en œuvre pour ñu rattraper les pays les plus développés mais ŋàññ ñëpp ñoo ko mën merci monsieur le ministre d'avoir répondu à notre invitation merci également ci sa disponibilité euh, Pape Massata merci à vous d'avoir répondu à notre invitation ça a été un réel plaisir euh, de vous accueillir sur ce plateau chers téléspectateurs di leen remercier remercier également chroniqueurs yi ànd euh, tous les soirs ci Ndoumbelane euh, mention spéciale à Maman Gueye Femme Design parce que gis